bu dee input devices mooy bépp jumtukaay boo xam ne may rek euh, ñu dugal euh, ay données ci biir machine bi wala boo xam ne dañuy ñu mën a sélectionner ay donne euh, ci biir machine bi comme ñu gisee ci photo bii nii ba léegi ñu koy woowee HID Human Interface Human Interface Devices moo rond yi nii lay yore interface bi lay lay yore boo xoolee clavier nii la meloon yore couleur bii nii euh, bu dee léegi nag connecté yi ni tey nekk USB wala mu nekk Bluetooth xam na par Bluetooth euh, mën na àndal ay euh, ki koo xamante ne peut-être bu njëkk amu ci ci woon wala doo ko fekk ci clavier yëpp presque muy am ñoo xam ne comme siiw na alt contrôle am na print screen pour boo bëggoon a photo écran bi boo ko bësee mu photo la écran machine bi numlock boo bësee bouton yi bu ànd ak ay bouton comme côté bi ni doxul am na numlock bu nekk ci kaw boo xam ne moo koy taal scroll lock am na star amoon na ci léeg-léeg tamit yoo xam ne ay programme lu kii la boo xam ne boo ko see mu am lay defal loo xamante ne da ko see programme waale boo xoolee nii la daan duggee ci bu dee souris moom mën na ne mooy euh, bu dee lu jëm ci wàllu graphique lu ñu gis ni moom la ëpp lu ñu utiliser xëy na mooy jox ni moom ngay gis ni muy dox moom njëkk interface yi la meloon yoolu green Euh, léegi nag euh, li koy remplacer USB lay doon wala Bluetooth connexion am nañ amoon nañ trois façons yoo xam ne bokkuñu bis njëkk moom lañ daan wax euh, mechanical mouse mechanical mouse moo nekk nii day am benn rôle ab roulette boo xam ne moo nekk nii dafa daan teg fenn boo doxee mooy traduire di la ko officiel ci écran bi beneen bi mooy optical mouse optical mouse moo nekk ne ci kaw nii nii ñu ko gisee. moo nekkaat bi tamit ñu bind article nga xam ne utiliser ay ay façon couleur ñu utiliser ñu naan pour euh, man a détecter mouvement ngay def ci euh, surveiller bi ngay teg kii bi bu mujj bi mooy laser mouse bi nga xam ne laser lay utiliser pour moom détecter euh, mouvement yi muy façon bi bu dee nag mode ordinateur portable clavier bi built-in dañ ko ci liggéeyaale day ànd ak euh, euh, léeg-léeg léeg-léeg rek day ànd ak num euh, keypad mooy ci côté bi moo ànd ak benn paar boo xamante ne comme nii lay mel ni xam ay numéro yu boppam lay àndal léeg-léeg mu àndal ko ko léeg-léeg du ko am am ay fonction key day ànd ak fonction kii tamit fonction yi mën nañ koo defal loo xamante ne naan la boo bësee bouton bi exemple mooy yokk lumière bi boo bësee bouton bi mooy wàññi lumière yi ci ëpp dañ ko ci dessiné bu dee dafa jar nga boole ko beneen bouton léeg léegi dañ koy couleur boo xoolee F Fn bi léegi léeg dañu couleur ko bleu wala beneen couleur bu dee F3 ca kaw fonction Fn ci suuf bi lay nekk dee fonction ci kaw couleur bi bi lay mel noonu lay mel luy wane ne boobu si Fn bi boole ko ak boobu mu def loolu moo xam yokk lumière bi la wàññi soo beeg tëj euh, clavier bi ak yeneen ak yeneen bu dee lu jëm su wàllu su bi moom dañ ko ci liggéeyaale euh, moom it donc léegi-léegi nag clavier bi mën naa ñëw noo xamante ne pour nga bind ci teg naqar yi wala souris bi nekk noo xamante ne pour nga contrôler euh, day xaw soof daal boobaa day soxla bu la neexee nga yokk si external kay bu nga jënd beneen clavier bi dolli ci monte ko ci moo xam par USB la wala Bluetooth wala souris tamit ñoo am na lu naan stylus pen mooy euh, machine xam gu bi day dox bu la neexee nga utiliser bic moo xam machine la wala tablette wala leneen wala leneen boo xamante ne euh, dangay laal muy dox donte euh, nag dëgg mooy bu ne fonction dëgg-dëgg bi mooy dessiner la tax a jóg mooy dessiner wala nga bëgg bind ak dara comme bindum loxo doonte big bi am na léegi. les configurations euh, mën na lool parce que li ko waxee woon bu dee USB euh, la boobu wireless la ba euh, suuri bi batterie yaa ngi ci batterie yaa ngi ci am charge du jar leneen presque da ngay euh, doxal boo xaaral tuuti rek mu def ni ci def nga doxal mu daal di dem noonu tamit noonu lañ amee tamit ci déglage yoo xam ne mën nga koo def bu ñu demoon euh, de configuration am na fii exemple euh, yéen a nga def mën see def yeneen réglage comme fii nii dalay wax comme délai avant répétition ak euh, fréquence de répétition comme su ma defoon lan nii su ma bësoon téye wala ni muy yeexe maa bës A bi waaye su ma defoon rapide gis nga euh, long bi bu ma ko defoon court moo bësee A téye gis nga gën nañoo gaawante fii pour test la rek pour réglage la comme noo bëggee boo bësee A téye bu dee di lay leer da ngay bés bouton yu bëri bu la neex mën koo wàññi am boo bésoon A ni day xaw a yeex bouton boo bés te day xaw yeex curseur bi nan lay mel nga xam lay yeex lool boo doon bind nii gis nga bala moo kii day yeex lool wala mu gaaw dugguñ si waaye moom euh, bi ñun ñoo ko fabriqué emplacement beeg état bi pilote bi la euh, nekkee ba nga def ok bu jël ci souris bi ba léegi am na souris fii mën ngaa inverser bouton yi ki doon def clic droit def clic gauche ki doon def clic gauche def clic droit boo ko bësee rek day def inversé euh, vitesse double clic bi bu ma defoon double clic ci benn dossier vitesse bi day nekk rapide buy ubbeeku voilà mu nekk la jërul laal bu dee pointeur bi mën ngaa sensé am na yeneen ay pointeur yu bokk ak moom mën ngaa télécharger seen ci internet bi def def parcourir di ko utiliser yëpp ay façon yu bokkul la mën ngaa def ombre bi mu activé wu par défaut bu la neexut mu def mën ngaa def option bi euh, vitesse du pointeur bi nga def collant mouvement point wala mu nekk rapide duñ si soxla waat am nañ fii comme trace bi bëggee mu koy afficher bu demee di ko wala mu masquer ko wala bu la neexee tamit ngaa mën ngaa contrôler benn kii boo xam ne dala koy defal comme nii saa soo bësee contrôle bi dalay defal affaire boobu noonu les roulette bi la bu mm, dee matériel bi tamit euh, plot yi dalay wan mm, mm, bu dee ci clavier bi tamit am na lu naan comme exemple généralisation fii ba xam QWERTY nga soxlay binde wala AGRT comme bu nekkoon anglais ni ba bindee a day bind a suma exemple su ma bindoon français a bi suma day bind day def comme kii exemple nga xam ne ñaari benn ñaari frange la USB pour mu def kuy bi am na day wuute léeg-léeg nga dem ci benn machine nga bind A mu fekk ne kuy la lay bindal yow comprendre nan la demee fekk ne euh, li mu yoree la moom nga def préférence linguistique fii boo duggee préférence linguistique pour ba bëggee dolli keneen moo xam français wala nga bëgg a suppi yeneen comme mu fi nekk mën naa def ajouter une bi daanaka euh, yenn différence yi duñ bëri. comme ça soo bëggee bind arab da mën a bind euh, arab fi bi waxoon nañ ko commencement ba ak bii def espace da ngay bës bi tey ak espace bi di mën a tuxu ci diggante langue bu la neex boo ci bés mën ngaa dem option xool yi nga ci bëgg a réglé wala boo si bëgg supprimer gis nga mën ngaa def supprimer nekk loo xam ne la yaakaar naa loolu lañ fi soxla bu dañuy créer benn réseau boo xam ne dem naan ko PAN muy Personal Area Network pour ñu mën a euh, partager ay données diggante euh, yu jege moo xam ci diggante ordinateur la imprimante euh, waaye set euh, ci clavier geek souris yi xam ne euh, wifi lay doxe wala bluetooth lay doxe bluetooth xam am na benn signal bu muy boo xam ne si rajo rajo base de technologie benn façon signal la boo xamante ne si lañ ko liggéeyee bi yooyu Bluetooth dafa am ay classe yu bokk bu dee classe 1 day dem diggante bi nga xam ne moom day euh, yore mën naa dem ba 7 bu dee classe 2 day dem ba bu dee classe 3 device ba benn mètre un mètre moo xam euh, appareil bi nga yore wala device bi nga yore ban classe la bokk am nañ euh, version 2 moo xam te ne moom li mu transféré moom Euh, gaawaay bi day nekk 3 méga par seconde bu nekkut moom euh, comme version exemple yeneen day nekk 1 méga par seconde am na leen lu ñu wax euh, RFID mooy radio frequency identification mu nekk benn métode boo xamante ne dañuy may ñu ak ay objet moo xam nit la moo xam animal la wala leneen yoo xam te ne ay tag lañ koy euh, utiliser tag moo ñu koy may tag léeg-léeg naa nekk loo xam ne day soxla euh, batterie courant wala léeg-léeg du ko soxla bu dee dafa nekk passive devices mooy defa day laaj courant boobaa euh, li boo scanneree li mën a répondre di ko mën a kii vingt cinq mètres lay am bu dee active devices la 100 mètres day dem ba 100 comme ni nga ko gisee nii ay kees yu bëri la. bu ko tafee fii nii ko tiimalee dañuy jox information yu si nekk mën naa am kan moo ko moom wala fan la war a jëm yu demee noonu muy RFID di koy am na beneen tamit du naan NFC. muy nii fii version la P2P wala peer to peer. ci RAF nga xamante ne moom it dañ koy utiliser lu bëri moo xam ne léeg-léeg wala yenn place yi mooy léegi yépp xoolee du ko commencé am ko bëggee lire NFC léegi ñu ko commencé def ci euh, smartphone yi moom Euh, lu mu sori sori day nekk deux une six comme boo yoreen affaire bii nii day soxla nga jege affaire bi lool li nga bëgg scan pour am information yi xam day nekk quatre mètres quatre centimètres dem euh, six centimètres xam ne moo tax nga utiliser ndax il faut nga jege ko bu baax xam ne ay triche yooyu du ci yomb wala kenn euh, sàcc ci jafe bu dee gaawaay bi day nekk 106 212 424 kilobytes lay doon par seconde ku te bi xam na bu dee nikk euh, awoon nañ ci moom moo ñuy mën a may ñu mën a dugg ci connexion bi boo xoolee moo lay mën a may nga connecté euh, comme nañ koy waxee woon ci vidéo bi jàll lii moom la di wax nikk fii mooy port bi gis nga ethernet port koy wax connecteur bi ci dugg moom la ñuy wax rj cinq bu dee am na benn wax J11 bi nga xam ne fekk ci euh, modem yi yenn modem yi ëpp muy yenn routeur yi ñoo ko tuddee modem routeur yi duñ koy fekk wala euh, am port yi tamit euh, façon bi muy jël mooy J11 exemple boo abonné Orange bu dee digital gypse line mooy benn connexion boo xamante ne day aw si euh, filaire téléphonique rek lay aw xam ne dañuy soxla lu mel ni benn fixe pour ñu mën a am connexion bi ci lu gaaw kon loolu moo nekkoon euh, vidéo tey bi di sàkku si yéen ngeen abonné suñu seen youtube bi partage vidéo yi ngir ñeneen njëriñu si wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu